waaw. a salaamaaleykum. waaye sa waay. ah léegi waaye xanaa namm la rek nag. rek sama téléphone bi rek. waaye naka it tey téléphone bee sonn lañ. yaa ngi am dara maa na xam nga nga su ma tey ma wàccee fan yi xam hmm. nga rek. damay ñëw rek dugg ci loolu gis nga génnul sànq mi ngi fi mi ngi woon fii ci benn mi ngi woon fii sànq. waaye xam naa génn léegi. waaye say xef rek. sañ ba sañ. kontaan nga. la nga ba a waaye jawaay sa tànk. waaye xanaa mën a reetaan rek. jawaay sa tànk bi nga dem rek. jawaay da ngaa xorom de yow. waaye nag bëggoon naa nga waxtaan. ah waa jaxal ah na na faj wér wér. waa di yow tamit lu ko dal ba muy faju. sëñ Mahmoud mën te jàmbaar li ko dal ba faju kay laa bëgg a xamal. loolu demee na nii ah. eh kaay. waaye waaye jabaay bi a. sa wax la mooy sa wërsëg jabaay jabaay jabaay jabaay yamal jabaay loolu xam waaye jabaay bàyyi ma waaye jabaay ii man dina may bëgg waa xool lii la la jabaay bàyyi ma waaye jabaay jabaay bàyyi ma waaye jabaay yow jabaay lii la la ma jiyeen waaye jabaay yamal waaye jabaay jabaay bàyyi. booy buuse ma lay rek defal nii tëdd tëdd tëdd tëdd tëdd billaahi booy buuse ma lay rey jawaay jawaay booba bul wax bul wax bul wax laa la wax bul wax yow dinaa xam ba xam man maa jënd wala jabaay la jënd bay bay bay bay bay kaay ma lay at appel islam kaay ah, ah, ah, kaay jaxat jaxat avant la parle il faut réfléchir. waaw li ngay def waaw dafa lay wax rek. waaw waaw nga tudd. taxawal nga doog la ko ba pare yow tamit lan la. eh eh ndax baal li ngay def. dëgg la woon dëgg. lan mooy dëgg. lan la. waaw lan la. yow man looy looy dëgg la wala dëgg la. yow baal sama jaay eh kon dama fi maa ngi ubbi képp ku ne. baal say sama jaay. waaw bu réewoo ci la ko doon demal nga jàpp jaayam ba bëgg a xëccaale awraam nga yow. mooy dëgg waaw waaw waaw wax ma dëgg la woon dëgg la ay laajte. waaw lan la. billahi lu dëgg ma ko yaa àtte islam lan la damaa fekk mu naan jabaay daf ma nànk yaa ngi may gaañ jabaay daf ma nànk yaa ngi may gaañ ah, daa war a génn di baax war a gaañ yoroo ko gaañ da ngaa dikk ma gaañ yow bi da ngay gént de yéen ñaar ñëpp ay gént day xoolal yàq na sama nelaw yëpp suñu ñàkk fay li lan mooy loolu yow est-ce que dafa def bu bees tamit kon du dëgg du dëgg du dëgg kay la mooy dëgg yow maa ngi yaa ma fekk maa ngi dëgg di nelaw diñ ko suñu dara am fekk maa ngi nelaw diñ ko suñu mor xaatu fekk di waaw la mooy loolu waaye bàyyi ma nelaw waaye tamit nag yow la ah. bàyyi di ma déranger yow tamit ay waay ku ma koy yóbbul waar ku ma koy yóbbul sax si fu yi man ma joxe ñett ak daraas di def yo yu ñeex yooyu boo koy waxee xanaa saa tur war waaye loolu tuddee jabar waaw nijaay yenn neex yenn nijaay amoo la lay xamal la moo xew waaw waaw léegi waaw ah, la lu balaa laa la génne léegi laa nekk ci def na dem ci ah yow kay. man waay waay waay waaw. yow nga ñëw fii ak jëm fii. ay waay waay xale tey lan la ñu wax. war na dem. yow da ngaa ñaaw làmmiñ de war ngaa saal sa bopp nag. déedéet day yomb. day yomb laa la wax. loolu da nga koy gérer ba pare.